man la Modou mbay commerçant dëkk Touba di jaaye marché Ocass am fi nag ay coow ci sama digganteeg euh, ku ñuy wax maa xari Mbàkke Mursala tamit euh, solaat diwlin fële ci boori ngaabu moom laa amaloon ay werante lu sax maak moom man ak client la moom mu dugg ci moom laa bëggoon a leeral ni ni mu demee mooy facture bii ngeen di gis ku ñuy wax Mouhamed Lo la ko Maaxari Mbàkke jaay mu nekk diwlin 1000 bidon diwlin Maaxari Mbàkke moo ko jaay ku ñuy wax Mouhamed Lo lii ngay gis ni bon de livraison la boo xam ne Mohamed Lo la ko joxoon mu ànd ak facture bi facture bon de livraison bii ngay gis nii mboolem kuy liggéey ci palaasam muy sëfooram muy kuy seere stogam ñëpp signé nañ ci ba ci sëfoor bi ak ñëpp numéro bii ngay gis numéro otoom la moo sëfoon diwlin ki waxtu wiñ ko doon wàcce it onze la ci bëccëg mi ngi nekk le 30 mars 2000 2022 le 30 mars 2022 léegi kayit bii ngeen di gis rosi la li ñuy wax attestation de paiement muy décharge kayit boo xam ne day wane ne Mouhamed Lo jox na Makhari Mbàkke xaalisu bi 1000 bidon diwlin yi mu ko jaayoon léegi boo boolee kayit yi mooy bon de bi ak facture bi ak reçu de paiement bi bi mu defal Mohamed Lo léegi nag Mohamed Lo boobu man jaay ma 1000 bidon diwlin defal ma facture bi lii reçu bi ma ko fayee la lii décharge bi ma ko bi ma defal la bi ma ko joxee xaalis muy facture bi ma ko jaayee diwlin gi ak euh, reçu de encaissement biñ ko fayee xaalis bi ak décharge bi mu ñu defal biñ koy jox xaalis bi it am na ay témoin ñooñu ñëpp it témoin nañ ci. léegi moo léegi moom li nekkoon problème bi nag bi lii xewee dégg naa xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg mu ne mu Lo mii da koo joxut xaalisam mu ñëw nag sama place laaj chauffeur yi fu ngeen wàccee diwlin gi mu ñu muy ñëw muy sama place mu dem police ne dañoo sàcc diwam. parce que foofu boobu foogoon na ne mu Mohamed Lo kayit yi mu ñu jox yoru ko dem police ne dañoo sàcc diwam police boole ko ay ndaw ñu ñëw sama place jël si ma ma ànd ak ñu ko fekke ñëpp ñu dem police fekk ko police ñoom ñu laaj ay waa këram ñu wax ne affaire bi demee ñu laaj ma ma wax ni mu demee ñu laaj ma samay facture ma ne leen man ci ay kër yu leer naañ ñi lañ ma jaayee ñu ne ma ana facture yi ma génn facture yi wan commissaire commissaire xool kayit yi lépp walaabul commissaire daal di moom génn ca wax ja ne ñu dem leen ngeen ñibbi ma foog na jeex na ma ñibbi ca suba ga ba ca onze commissaire woowaat ma ma ñëw mu ne ma procureur nee na nga jox diwlin gi maa xari Mbàkke te nga toppe Mohamed Lo ma ne ko man mënumaa toppe Mohamed Lo. ban commissariat la. Euh, commissariat ne ko man mënumaa toppe Mohamed Lo ndax man Mohamed Lo dafa maa jaay jaay mu leer naññ ma fay ko leer mu jaay mu leer ma fay ko bu leer naññ nu ma koy porte pelent man du ma ko porte plainte ma ne ko maa xari mii toog nga xam ne moom moo jaay mo diwli na Mohamed loo xaw ma fay na ko xaw ma fay ko ñoom ñaar seen affaire la. moom na seeti Mohamed Lo wala mu waxee Mohamed Lo parce que moom moo xam Mohamed Lo affaire bi nii la demee mun ñu ne ma boo joxewul diw gi ñu téye la ma ne leen nay léegi si ñu téye mu foofu juróom-ñeenti fan garda bi neuf jours ma jóge fa ñu defeere ma yóbbu ma Jurbel bi ma demee nag juge bi relaxé ma dama demal ñibbi ma foog ne affaire bi jeex na ndegete ba léegi affaire bi jeexut lii daal mooy wax ji affaire bi daal loolu la moom ñoom mënuñ wax ñu ne mënuñ wax ne facture bi walaa bulut mais moom it loolu naka la mën a amee facture walaa bul moom sañun te jaay di woon bon bu ko jaayee nag ñun juñuy junne du ñuy malaaka li ñu gis te mu tege ci yoon rek loolu lañ mën a loolu lañ mën a appliquer la ci ginnaaw moom na ko na ko séqi ak moom mi loolu ñoo xam seen affaire